brigade nationale de l'hygiène fas yéene jàppale seen naataango yi nekk fii ci Touba ngir xeexi jàngoro Covid 19 bi ñu fas yéene pompe marché Ocass bi lii doon ab programme boo xam ne nii dañ koo naal Moustapha Kane moom moo yore communication ci brigade nationale de l'hygiène. service d'hygiène dafa am ay mission yu ñu ko tëralal te am ci mission bu am solo mooy waxtaan ak nit ñi yee leen ci mbiri hygiène bi pour que véritablement kenn ku ne mën a sàmm sa wér yaram loolu nag moo cadre xeex euh, euh, pandémie bi nga xam ne ci leen nekk boobu ba léegi euh, service d'hygiène ñëw fii ci Touba appuyé si brigade spéciale d'hygiène de Touba bi te kilifa gi Salam Keïta jiite ko pour que véritablement de temps en temps importance Touba ni mel ak poids bi mu am di point de vue démographique tax na ba véritablement ñoom ñi ngi def bu baax liggéey bi ni leen ko sante waaye soxla nañ de temps en temps ñu ñëw leen appuyer leen ci lu mel ne lu mel ne ay marché yi nga xam ne marché Ocass kenn ku ne nga xam ne man nga ne sax marché international la pour que véritablement ñu mën koo désinfecter parce que fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajee foofu dañ ko war di désinfecter régulièrement mu ànd ak nag nit ñi respecter mesures barrières yi nga xam ni dañ koo tëral loolu bu ñu ko defee véritablement dana tax ba maladie bi man yàlla mën na suturaal mu jóg fi. ba tey jii jàngoro bi nag ñu koy nemmeeku ci biir dëkk bi tax na ba waa brigade spéciale bu Touba fas yéene taxawal ab programme moo di fas yéene pompe yenn ci ay marche yu nekk ci biir dëkk bi Alassane Salam kayta moom mooy jiite brigade bi di wax ne li nu mel nag dañ cee fas ne ànd ak ak maire Touba. dèjà lal nañ benn programme ak marché yi boo xam ni comme ni ko président waxee woon liggéey juróom benni fan juróom ñaaril fan bi ñu nettoyé ko. loolu déjà ñun lal nañ ci programme boo xam ne fii ba juillet ci jaar ci marché yi nga xam ne bu dul marché Touba yëpp it yi ci gën a bëri su ko defee bu ñu àggee ci euh, période boobu ñu defaraat beneen programme pour compléter yeneen marché yi ci des te loolu it bu jeexee maanaam dafa nekk loo xam ne dañu koy reprendre nekkul ni programme bi day jeex rek ñu arrêté ko waaye dañ koy tàmbaliwaat ba keroog comme ni ko suñu kilifa gi waxee marché yi léegi nga xam ne boo ci duggee di nga xam ne vraiment. bërëb bi sa xel dina dal la nga fay jënd aussi di nga di nga di nga am yaakaar ci ni dëgg-dëgg na mu war a mel mel na ko kon loolu tàmbali nañ ko euh, moo tax tey ñu ñëw fii pour désinfecter li nga xam ne mooy marché Ocass bi war a continuer programme bi bu subaa euh, ba fileeg mois de juillet vendredi bu nekk la marché yi yi nga xam ne ñoom la ñu def ci programme bi comme ni mu ko tëddee danan def li nga xam ne mooy seen nettoiement bi su ko defee après ci guddi gi service d'hygiène ñëw def li nga xam ni moom mooy désinfection bi comme ni ko suñu kilifa gi waxee donc ñu ciy xaar ñi nga xam ne ñooy autorités yi muy muy muy muy muy mairie Touba jiitu ci mais aussi yeneen volonté yi nga xam ni bonne volonté am ñi ngi Touba euh, raw nu mel naka Touba ca kanam hmm, ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi fi ñu leen ci xaar fii ñu am jàppalante boobu ngir vraiment euh, objectif boobu ñu mën ko réussir au bénéfice des population xeex jàngoro covid 19 bi di laaj mboolem askan wi nag ñu dugal ci seen loxo rawati nag sàmmonteeg ak set ak selal gi ba tax na nag waa service de l'hygiène ñoom itam di ñaanaat ñu gën a désinfecté mbooleem bërëbu liggéeykaay yi ak lii di biir kër yi ko gis ne actuellement wax dëgg yàlla moyens yi ak xaalis bi ñu ci investir koo xam ne sax da ngaa jàppoon ne lii ay caaxaan la loolu wax dëgg yàlla war nga xam ne lii du ay caaxaan dañ ko war a respecté nag kenn ku ne da nga am respecté yow sa bopp ak protéger aussi nit ki nga xam ne moom nga nekkal protéger sax sa famille nga xam ne men yow boo ko dee def war nga sa biir kër taxaw fa taxawaay boo xam ne nii ndax nit ki lu mu fonk ñu doxal ko ci biir këram danañ ko fa doxal bu fekkente ne da nga faa toog di ko seetaan rek nit ñi bu feebar teew bu ku ku feebar yowey jël sa alal ci def loolu loolu boobu responsabilité kenn waru ko def ndax ñun xam na ne fii ne problème bi nu am mooy su marché yi ñu mën koo saytu ba mu set wecc ba ñam yin fii jaay vraiment nit ñi buñ ko lekkee duñ am benn jafe-jafe loolu nag li muy tax mu mën a am mooy dañ koy nettoyer régulièrement te loolu ci responsabilité maire yi dañ koy war di désinfecter régulièrement loolu tamit covid bii nga xam ñu ngi koy vivre am nañ ci expérience boo xam ne service d'hygiène ak maire yi nga xam ne ñoo ne Sénégal def naa buñ continuer loolu ñoom dañuy maire yi dana mën a appuyer service d'hygiène pour que désinfection bi ñu mën koy baril ndax loolu mooy tax marché yi set ñiy jaay itam ñu ñu ñu ñu xam ne njaay yi koo jaay ci suuf mbalit yi ne ci mbedd ci biir marché yi maire yi di def le tout pour que ñuy tëj marché yi heure di ko fermer heure mën a bale mën a désinfecté ba tey jii nag Covid 19 bi di lëmbee ci biir réewum Sénégal tax na nag ba waa service national de l'hygiène di sàkku ci mboolem maire ñu dugal seen loxo ci désinfecté ak raxas lii di bërëbu marché yi ngir ñam yi nga xam ne nii moom moo bàyyi ko ci bërëb yooyu ñu mën koy jëfandikoo ci anam gu sell te it benn jafe duñ ko am ci wàllu wér gu gi.